awuusu billaahi min aseytaani rajiimi bismillaahi rahmaani rahiimi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki téléspectateur murit point info ñoo ngi leen di nuyu ci kenn ku ne ci turam ak santam waaye di nuyu di siyaare xalifa général kullu murit sëriñ Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu borom bàyyi ko fi tam àggale yéene kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoom la toogal ci jataay bi di nuyu sëriñ Mouhamadul Mountakha muy sëriñ Ahmadul Muxtaar mi nga xam ne moo xalifa Daaru Xudus ak mbooleem njaboot gépp di ko siyaare baax a baax kon tey jii ñu fas yéene jàkkaarloowaat ak mbokki taalibe yi ci seen site murit point info ci seen émission daayira en ligne ànd kook sëriñ Maam Dame Ndiaye tey jii nag ñu am gan yu tedd ci jataay bi ñu teewal fii njabootuk Cheikh Mouhamadul Moustapha euh, incha allah buñ duggee ba ci waxtaan wi danañ ànd ak ñoom ci gën a yaatal gi mu mel ne rek ci la ñuy jaaree siyaare ñu jox sunu gan yi ñu nuyoo euh, ñu ak euh, continuer li nga xam ne mooy jataay bi ñu jox président adjoint président Serigne Fallou su ko defee moom mu nuyu mbooloo mi auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مك جولي ني مك طالبي نيغي لي ني نيو سين تور اك سين سانت سي نيو بو غنا سيل نيو اسلام الا وهي السلام عليكم ورحمه الله ني سي جيتال ني سيرن منتخا مبكه خليفه نرا كل مريد ديكو نانا يالا مو ياغ في لول تا وير te yàlla kàttanal ko waaye di taftal suñu Moussa Mbacké Fallilou ak mboolem kilifa diine yëpp ñu nuyu suñu mbokk yu baax yi xam ne nii ñoom lañu àndal émission bi suñu suñu daam ak mbokk yi àndal yëpp rek ak suñu mbokku taalibe Abdou Khodos Ndiaye ñu nuyu ñëpp rek incha allah ñu. jërëjëf Serigne Fallou ci nuyoo bu. jotal bii nga xam ne moom nga nuyoo mbokk yi nga xam ne ñoom nga jàkkaarlool ci seen site mourides point info kon incha allah ci lañ fas yéenee tamit buñ joxee sunu wetuk ndeyjoor sëriñ Abdou Khoudous mu nuyu moom tamit su ko defee ñu dellusiwaat ci yow dugg nag ci dëggi-dëggi jataay bi li ñu fi tax a toog kon sëriñ Abdou Khoudous ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk yi euh, présenté waale euh, incha allah.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 Daaru Xudus Cheikh Ahmadul Mokhtar di ñaan suñ borom yàggal ko fi te wér ñaanal bu baax a baax sëriñ Moustapha Fadil mi nga xam ne tey jii moo waral jotaay bi di nuyu di leen siyaara di siyaara mboolem jullit yi ak fu mën a nekk rek rawatina mbooloo mbokkum taalibe noo ngi koy nuyu di ko wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëñ Abdou Khoudous ci nuyoo bu jotal boobu. Euh, mel na rek dañ jël siwaat euh, ñu jox sunu euh, gan sëriñ Fallou mu fas ni ñu duggal ci première tomb bi mooy jataayu tey bi wala daayira bi nga xam ne mooy daayira sëriñ Fallou ñu bëgg rek mu defal ñu ci ay leeral lan mooy cosug sosug daayira bi ak daayira bi nan la tudd su ko defee rek loolu mooy première laaj bi nga xam ne moom la ñu fas yéene ak sëñ. jërëjëf sëriñ Dame si laaj boo am solo boo xam ne nii laaj nga ko si jëm si daayira bi euh, nu mu tudd ak kañ la ak kan la si wàllu taxawaay daayira bi. mu ngi tudd daayiratu muxlisina wal muxlisaat boo kër sëriñ Moussa Mbacke Fadilou. ابن الشيخ محمد مصطفى ابن خادم رسول رضي الله عنهم Cheikh Moustapha moom mooy ki xam ne nii moom moo taxawal daayira bi tudd ko daayiratu muxrisina wal muxrisaat li ko tax a jug nag mën naa ne la jëmmal islaam ak gën a dëgëral islaam ak jëmmal maam ji tedd wax wax ji mu daan wax si booloo ak boole nit ñi ak lépp la nekk lu benn te loolu mu taataan nekk ci Alxuraan wax ne waxtasimu bi xablillaahi jamiihan wala tafarraqu ngoogu aay boxoon te maam ji tedd ji daan ci taxaw daan ci liggéey suba ngoon bëccëg a guddi Cheikh Moustapha jaar foofu ma foofu maamam ji baax ji jaar dajale yenn si daal taalibe yi boobu taxagut sax am noonu solo bari taxagul ñëpp toog waaye ña fa nekkoon as néew mu boole leen ci benn jataay fee sa bayti sos taxawal daayir bi jox ci ndigal ci ci tàmbalee ci jëwriñ ñi naka nañ fexe ba lépp loo xam ne nii moom mooy kër gi ak lépp luy boole kër gi ci eh, mboolem taalib yëpp rek mu jox ndigal naka nañ ci taxaw ci jëwriñ ju tedd jëwriñ ju am solo yal na yàlla dolli ay yërmaane si kawam ku ñuy wax Baye Moustapha Diop Sanjiri jamono yooya xam ne ni moo nekkoon xalifa kër bi jëwriñ kër gi mm, mu nekk njiit si kanam ak ñoom baay Baara Diop ñëpp topp si ginnaaw si Moustapha jox leen ndigal ne nañu taxawal daayira bi euh, tudd ko daayira Muxaddimatul Xidma lépp loo xam ne mooy mooy taxawal kër gi ak li ko jëmmal ak tax ñëpp nekk benn loolu mooy xam ne nii euh, moo tax sëñ bi su son daayir daayir bi kan fekkente ne laaj boobu euh, ñu mën a taaxir laat beneen laaj ba bu ñu ñëwaat lekkente ne kañ la ak naka la wala incha allah te ñi ngi ñi ngi si taaxir incha allah. Euh, jërëjëf mel na ne ubbi gi nga xam ne ubbi na ko ci tomb boobu. képp koo xam ne yaa ngi eh, seetaan jataay bi eh, jàpp naa ne danga xam fi mu bëgg jëm ndax mbooloo boo ko taxawalee faaw nga wutal ko aw tur kon daayira bi nga xam ne mooy daayira na wala muxlisaat kon nu bëggoon a xam rek daayira bi kañ lañ ko sos ak tamit ki nga xam ne daa bokk ci njaboot gi wala mu sopp biir njaboot gi muy sopp sëriñ bi te bëgg cee bokk ci wan yoon lay jaar loolu daal bëggoon nañ sëñ Fallou nga leeral ñu ci bu baax a baax kon ñu jox ko kàddu gi mu leeral. waaw jërëjëf sëñ maam daam euh, li nga laaj laaj nga laaj nga laaj bu am solo kañ la ko sëñ bi sos daayira bi sëriñ bi mi ngi ko taxawal comme li ma waxoon sànq ci jëwriñ yu tedd yooyu sëriñ Moustapha Diop Sanjiri ak Baye mbay Sarr ak sëñ Bara Diop ci atum 2004 diggante 2004 mooy ma bay na 2004 wa 2005 diggante boobu kam jamono ji ñu nekkat ne kat avril 2004 xanaa duggoon duggoonte ne duggoonte ni ci 2004 googu sëñ sañ bi euh, euh, taxawal daayira bi si jëwriñu Baye Moustapha Diop euh, Sanjiri an moomu la ko sëñ bi taxawaloon mu mel ne ba tey ni xam ne nii moom la daayir bi doxe daanaka mën naa ne moom la daayir yi bari di doxe mooy yoon wi xam ne nii moom la sëriñ Cheikh radiyallahu anhu doon yoonu daayira xam ne képp koo xam ne nii yaa ngi si biir kër sëñ bi moom nga xam ko ak nga ñàkk koo xam nga nangu ak nga ñàkk nangu yaa ngi ci biir daayira bi te daan xam naa ne sax ñëpp nangu ndax daayira bi mboole maam membre yi membre ñi xam ne ñoo ci biir kër bi taalibe yi euh, ñoo xam ne nii bokkuñ ci daayira bi bariwut xanaa ñi xam ne nii xëy na ëmpale gi xëy na moo xaw a tax ba ñenn ñoo xam ne xëy sax egguguñ ci biir waaye képp koo xam ne nii yaa ngi ci biir kër kër sëñ bi rek dañu xam ne rek yaa ngi ci biir biir biir daayira bi Euh, ni ni muy doxee nag sart yi ni ma ko ni ma ko waxoon sax sart yi ko suñu ceex tegewoon rek képp koo xam ni daayira bi neex na la ba nga ba nga bëgg a yeeslu wala membre boo xam ne ab soppe la sopp Cheikh Moustapha bëgg a liggéey Serigne Moustapha ba nga da nga ne damay ñëw ànd ak yéen liggéey bi de boobaa gunte ya ñuy ubbi woon lañ ubbi ibbi benn la mooy ñëw xam ne ne kat jaayante liggéey Serigne tubaa moo fi nekk ba su njëkk mooy nga fexe ba li xam ni mooy mooy mooy bunt bi jënd kart membre bu jënd carte membre daal di adhéré wu si biir mbooloo mi bu jëndee carte membre nag ñu bind euh, topp carte te traité ko bind ko jaar fi mu war a jaar euh, ba lépp egg boo ñu xam ne kat yow mii lii kat yaa ngi ci biir mbooloo mi léegi naka naka la mbooloo mi doxee nag ak ay membre am loolu ba tey fekkente ne laaj bi mu ngi si biiram loolu te ñu mën ñu mën ñu mën see ñëw. waaye fekkente ne laaj bi euh, loolu la woon léegi ku si bëgg bind jënd carte membre euh, ñu arrêté ci kay bi ñu wax la lan mooy doxalinu daayira bi ak charte daayira yi noonu mooy mooy kii bëgg a kii bëgg a dugg si kër gi bunt bi bu jaar bunt boobu lay jaar sëñ maam daam. jërëjëf sëñ Fallou mu mel ne tomb boobu leer na naññ wax nga ne daayira bi ñu ngi ko sos ci deux mille deux mille cinq ci diggante bi comme ni nga ko leeralee waaye wax nga tamit daayira bi ki ci bëgg a dugg moo xam muy taalibe bi wala soppe bi euh, tamit fan lay jaar ba dugg fi loolu tamit ñi ngi ciy mel na ne ñiy jàkkaarloog jataay bi xam nañ bu baax euh, daayira bi dépp daayira boo xam ne rek miin nañ ko muy turu daayira wala muy doxalin ci buntu boobu lay jaar xam naa bala ñu dellusiwaat ci euh, yan programme wala euh, ban règlement aw doxalin moom la daayira bi doxal dañuy jox euh, sëriñ Abdou Khoudous Ndiaye moom mu dikkal ñu ci daayira muxlisiina wala muxlisaati ak daayira bi nga xam ne moom lañ wax ne moo jiitu ci daayira yi muy ittihaad bi ak yoon yoonu murit nga xam ne su naan lan moo koy doxal muy stratégie bi nga xam ne mooy doxal yoonu murit jàpp nañ ne première tomb bi ngay laal mooy daayira ana diggante yooyu ma tudd lan lan la ci daayira bi bàyyi xel ba tax mu sëriñ bi taxawaleeku noonu di ko doxalee doxalin wu rafet te ndax mi ngi ci bàyyi bàyyi xel li nga xam ne mooy doxal euh, yoon wi ak doxalin wu rafet loolu daal lañ amoon loo xam ne dañoo bëggoon nga leeral ñu ci ci diggante la daayira bi bi ko sëriñ bi sosee jubluwaayu sos gi nga xam ne da ko tënk ci yoonu murit waaye bàyyi xel nag sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Guène Fane mi nga xam ne moo sosoon daayira maanaam lan nga ci mën a indi lu leer muy saraa ban gën ko mën a xam surtout membres yi nga xam ne ñoo ci bokk. jëf sëñ maam Dame Ndiaye ci laaj bu am solo boobu euh, muy lan mooy tax ñu sos daayira bi comme ni ko sëñ Fallou waxee. waaye itam ak digganteem ak ittihaadu atbaa'il xadim li taawuni wa tamasuki bi diinil xawim muy daayira bi nga xam ne sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma moo ko sosoon ñu mën a wax ne mooy ndeyu daayira yëpp seen diggante ñoom ñaar mu mel ni ni ko sëñ Fall wax rek daayira bi sos gi du lenn lu dul gis-gis ba sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma amoon te mooy liggéey ak jaamu yàlla ak ak bennoo ndax loolu moo war ab jullit rawatina ab taalibe te yaakaar naa loolu gis-gis boobu mu amoon mooy gis-gis képp koo xam ne yaa ngi sos daayira ndax daayira mënut a paase liggéey jaamu yàlla ak li nga xam ne mooy dimbalante te yàlla tax muy loo xam ne maanaam bu doon islam loolu mooy fondation bi te loolu li ci gën a gaawul ci jamono léegi ji mooy daayira kon daayira bi gisinu sos bi mooy liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul ndax liggéey kenn ku ne xam na ne ci yoonu murit dafa am symbole dafa am taxawaay bu muy taxawal ci yoonu murit ndax serigne touba khadim rasoul sax mi ngi don ñaan boromam nan ko nang ma def ma don doon liggéey xaakoonu julit yep wa akhrina ya rabbana bil khidma lil muslimina abadan wa rahma lol nak liggey bobu xamni serigne touba mom la beggon di liggey julit fu toll motax gis-gisu serigne mohammed mustafa muy wo aw aw ñoñam nga xamni ñoo aji ci mom te yaakar ko mu wutal len ab daayira bo xamni mo len di boole ngir ñu mën di liggéeyal fu abdulit nek rawatan ñom seen bir looloo tax mu sosoon daayira bi tuddee ko nag tur boo tur boo xam ne daa bokk ci ponk lislaam yi ndax wala ci diine la bokk muy way sellal yu góor yi ak way sellal yu jigéen yi loolu nag moo tur woo na moo walangaan wala moo rogalaat ba agsi ci ci waa mbooloo mi boo fa demee la nga gis ay nit ñoo xam ne wallahi taala seen kàttan sax demul noonu waaye seen pas-pas ak seen bëgg-bëgg liggéey bi mooy tax danañ def loo xam ne sax da leer na ñii seen kàttan àggul foofu te lépp ngir bëgg liggéey kon daal lool mooy solos maanaam mbooloo mi loolu mooy tax ñu sos daayira bi loolu itam moo doon gis gisu sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh bi ñu ko laajee comme laaj bi lool rek la wax l'islam ak bëgg itam nit ñi xamante miinante tey dimbalante ndax nit ñi saa yoon xamante il faut ñu dimbalante te loolu mooy tax ñu yërëmante seen biir comme ni ko ni ma ko waxoon ci bayit woowu loolu rek mooy solo si daayira bi kon foo leen fekk daal xamal ne aw nit lañ woo xam ne dañuy liggéey ngir yàlla rek di dimbale seen biir di liggéeyal Sëriñ Tuubaa fu man a nekk loolu mooy li nga xam ne daal mooy turu daayira bi waaye loolu tam mooy gis-gisinu daayira bi noonu tam la royee ci daayira Sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma bi nga xam ne mooy mooy ndayi daayira ni ma ko mën a waxee te it noonu rek la xool di ci doxee ñoo am itam relation bu rafet ci seeni i programme yëpp daanaka lu ci ëpp ñoom ñoo koy organiser ngir itam jiitu gi mu leen jiite ci liggéey bi teñ ci ñi jàng ci seen ginnaaw loolu daal yaakaar naa maam Dame Ndiaye su ma kiiwut loolu mooy ci gàttal daal mooy daayira bi. Euh, jërëjëf sëriñ Abdou Khoudous Ndiaye ci leeral bi nga xam ne leeral nga ko ci diggante le maanaam li li sëriñ bi jublu woon ci daayira bi bi mu koy taxawal ngir lëkkale njaboot gépp waaye lëkkale lislaam gépp ngir. nu mën a dimbalante euh, comme ni nga ko leeralee kon mu nekk lu am solo loo xam ne euh, bépp képp bépp daayira war naa xool ci doxalin yooyu mu mu ci doxal ndax am na solo bu baax a baax ndax firne bi muy wax ci relation bi am ci diggante ñaari daayira yi wane na ko moom ndax mi ngi bokk ci section Taïf waaye tamit bokk tamit ci euh, ñi jiite éducation bi foofu noonu kon loolu mat na joxañ mat na royuwaay ci wàll googu kon dañuy ñëw ci sëñ Fallou Euh, dikkaat ci ponk boobu mu jëm ci doxalinu daayira bi léegi bëggoon nañoo xam daayira bi ginnaaw bi nga ñu ko leeralee ba noppi liñ bëgg a xam nag mooy daayira bi ci yan norme lay doxee maanaam tudd nañ ko ci daayira bi nga xam ne mooy ndey yi muy daayira sëñ Cheikh muy daayira euh, ittihaad bi ban texte ndax daayira bi am na texte bu muy doxee wala ci lan la sukkandikoo ci loo xam ne membre bi ci bokk. dana xamni li daayira bi bëgg nako ko daayira bi bañ nako ko doxalin wi mom lañu wara war doxal ci ni lañ séddali ko lool lo ma ci mëna léral def suñ maam daam ba laaj bu am solo bobu mu jëm si doxalinu daayira bi ba rek inshallah mëna ci sontu tontu bu leer nañ si wat rek si niñ waxoon. nekkat yàlla nañu ko yàlla fayal sëriñ seex ndax daa mel nekkat doxalin daayira lépp ak togg la goo xam ne nii mboolem koo xam ne ñëwaat nga si daayira rek togg goo xam suñ seex Cheikh togg la ba mu ñor xanaa jëf yow jëfandikoo dong nga nga si am ne bu ñu teg si la dañoo copier rek teg teg ndaxte loolu lépp lu mu tax xalaat rek xalaatoon na ko ba sax loo xam ni sax ñëw guddi sax daayira la bokk sax xalaat na ko ba teg. heure bu suñ xel eggee rek dañuy xam ne que lii suñu seex waxoon na bu yàgg ndax waxam du deñ mu ñoo xam yàlla da baax na leen seen i wax daanaka bu ñu waxee Alxuraan wax ndax lépp lu ñu wax rek lu lu lu wér la lu la te loo xam ni mooy dox moo mooy jëmal mbooloo rek la mu mel ne kat ba tey ni ko waxee ni ma ko junj noonu la mooy daayira bi am na dañ ko tudde ay sart mooy kat képp képp koo xam ne nii yàlla def na na daayira bi neex na la ba tax nga ne nga ñun damay jënd carte membre ñu ne kat léegi daayira bi ne nii la ba sa jiitu sëñ Cheikh waxoon na sart daayira bokk na sa euh, teew ak teelu ak teg xanaa teg la la sëñ Cheikh woon ndax moom teg ba donte am na solo waaye yitteel la doon doon doon teg ba baat bi mu aay mu ubbee rek moo ne moo moo ne ko yitteel sëñ Cheikh waxta sëñ bu bi Abdoulaye Jami Xaan xanaa teew ndax ay mbokk taalibe fépp fu ñuy teew. kan danañ gisante ndax suñu xam dox doos wax na ko sànq ndax ndax bu buñ teewee rek kumpale da da daal dem dafa kumpa kumpa dañ nag ah jàmm daal dafa ñëw kenn ku nekk xam sa borom mooy mooy mooy kan kan te teew dafa ñëw teewlu mooy boo ñëwee da nga ànd ak mbooloo mi si sart yi ñu bëgg ñu bëgg a def mooy euh, kenn ku nekk toog toogaay islaam sàppe sàpp bu jub banque say tànk diglu. ñi xam ne nii ñoom la yàlla def ñu ne ca kanam di war di leeral mbooloo mi ak di wax ak mbooloo mi lépp lu ñuy wax nga di ko diglu yow ti lépp loo xam ne ni mbooloo mi sàkku na ci yow nga war ko wax nga nga nga di ko li si ni ko war a jot jotalee kon loolu bokk na sa sa sart ya ak ànd ak na teg bi nag bi xam ne nii mooy euh, euh, mu dimbali daayira bi ndax dañ naan teg tegu daayira essence na si oto. ndax kat daayira bu teg ñëwee yaakaar naa dana tax na kat lépp luy yittee kër gi lépp luy yittee daayira bi yaakaar naa lu ñu ci am rek dana faju incha allah te du ñu jéggaane kenn du ñu xool kenn duñ duñ duñ laaj kenn kan ma sëñ maam daam bu fekkante ne euh, loolu leer na daanaka noonu lañ ci bëggoon tontu ak nag di defarlu nag baax nag si di si nga laaj sànq si Abdou Khoudoss parce que loolu dañ ci am référence bu mat sëkk ndax am na ñu xëy na ñun ñoo ko ci gën a ëpp référence li tax ndax ñu ñun la ndax sa kii day day day ku nekk si nekk si daayira bi waaye nekk si daayira daayira daayira wilaaya ñun ñu xam ne ñooy daayira muxlisaat muxlisaat ñu gis maanaam doxalin bi xam ne nii moom la waa daayira wilaaya doxe ba tax ñun daanaka ñun ab école lañ si biir wilaaya lépp loo xam ne nii soxla naa ko dama koy daal copier ku mel ne suñu muur yi ñaare bëggoon naa mu teew fii bëggoon maa seede euh, ñaare sa sa ku ñu xam na si biir mbir Mbour Ah, sëñ Abdou Ba bu bu bu Taïf ku ñu xam na si biir mbooloo mi xam ne lépp loo xam ne nii ñun eh, am na nu ñu bëgg rek dañuy daal di bu fekkee lu ñu laaj la danañ faral laaj ak waa daayira suñu Mbàkke Madina xam ne nii daanaka ñun bokk ñaar ñoo xam ne suñu seex ko xam ne ko xam suñu seex xam suñu Mbàkke Madina xam ne ñoom ñaar daanaka ñoo ñoo rek waajur suñ suñu fàllu xam ne lépp loo xam ne suñu faal egg na fa rek ñoom ñaar ci di gën a delluwaat njikkal bu a baax ñu daayira woowu waaye nag di jiital cant nag ki xam ne mooy daayira daayira euh, euh, moo moo ëmb lépp loo xam ne mooy mooy daayira dara loos kan daanaka ñu ngi jégul na côté bu baax baax laa waaye kan ñi ngi delloo kàddu rek ba xam ba xam laaj bu fekkee ne laaj bu ñëwaat incha allah rek ñu tontu ci lépp loo xam moom lañ ci bëgg a tontu jërëjëf euh, jërëjëf sëñ Fallou mel na ne leeral na leeral bu yaatu ci doxalinu daayira bi ak euh, ci ni ko sart yi tëralee kon yaakaar naa dégg nañ ko bu baax a baax ndax euh, wax nañ ne Serigne Cheikh Amadou Mbacke génn fan ma dañ koo laajoon ne ko ndax Serigne Touba dana daj jamono mu ne dana daj jamono ñu ne ko ci nan lay dajee jamono mu wax ne dana dem ba fépp fu ab murit nekk dana fa samp danañ fa samp daayira di waxtaane sëriñ bi di di di di jàng alxuraan ak di def ay cant kon ci ni nga waxee rek ci laa déggee déggin woowu kon di ci sant bu baax euh, di sant bu baax a baax diwaan bi nga xam ne moom moo nekk ci ron xalifa bi euh, mboolem daayira yi tamit nekk fi donte sax wilaay moo fi jiitu waaye nag euh, loolu rek ñi ci sant bu baax a baax njiit sëriñ Ousmane Mbacke genn Fatma sëriñ bi ñu ngi delsi ci laaj bi nga xam ne rek bokk na ci laaj yu mujj yi mooy daayira bi ndax ci biir Touba rek la la nekk. wala am na yeneen i daayira yoo xam ne ñu ngi séddalu ko ci nan bëggoon nañu leeral ñi rek ndax daayira bi tubaala la wala Danki la wala euh, Darul Islam la wala feneen la maanaam fan la daayira bi toll ak fan la nekk. suñ maam daam daayira bi mën naa ne ne daj na Sénégal. képp daanaka incha allah suñu mooy mooy dem ba Sénégal fépp foo xam ne nii rek wala ab kii la rek daay dafa am te donte am na fu bari nag waaye fu ñu njëkkee rek mooy ne. xam ne ne mi biir Touba service social bi Touba Darou Khoudoss kër Serigne Moussa Mbacké Falilou xam ne foofu mooy service bi xam ne daayira bi xam ne lu foofu la ñuy daayira lu si ëpp si ajuma yi ajuma la ñuy daayira xam ne lu si ëpp si ajuma ji ginnaaw toog saan incha allah foofu lañuy ñuy dajee di nekk fa di waxtaan dajee si ba ba ba ginnaaw tamit ñu doo ko yewee ko tàmbalee daayira islam daan ki xam ne mu fa la Cheikh Cheikh Moussa Falilou nekkoon Cheikh saa nekk fa ba tey foofu daayira bi maa nga fa am fa am fa doole macha allah boo fa tit euh, daayira ma fa boobu ba léegi di fa di fa taxaw daayira bi am na itali itali si si njiital sëñ Moustapha Baara Dieng moo fa nekk jëwriñ euh, bu dee daal daal islam léegi sëñ Fallou Dieng moo fa nekk jëwriñ bu Dakar am na fa ba tey am na ab ab sees te sëñ Abdou Wahab Xulle jiite ko Euh, am na Kidira ak Bakkelu yëpp noonu am na am na fa sëñ fallu Dieng ak Baye Cheikh Dieng ñoom ñaar ñoo fa jiite daayira bi kan daayira bi mën naa ne ab fédération la donte dëngaguñ ci nag nakat sart yëpp ba mat waaye ñi ngi chaque tour ñi ngi dox jéega ñi ngi avancé nànk-nànk jëm si li nga xam ne mooy fédération li mu làmboo lépp incha allah ñu làmboo ko euh, ndax donte Louga am na fi ay membre taxawal siis bi mu ne te te incha dem nañ ba ba ba ñu matukaay yëpp jël nañ ko ba ba ba pare ak ak feneen ak feneen ak feneen kan daanaka mën nañ daay kan fédération la xam ne biir Sénégal ak bitim réew fépp euh, kan fekkente ne suñu laaj boobu euh, leer na ñu ngi ñu ngi taxawal benn kàddu euh, jërëjëf sëñ Fallou mel na ne jot leer na nañu ci laaj boobu ndax xamal nga nu ne daayira bi yëmu tubaa rek sees bi moo nekk Touba. waaye mbooleem ci gox yi ak gox goxaan yi maanaam daayira ba àgg na fa ba ci bitim réew lim nga ci ay président euh, donte sax am na ci dëkk yu nu àggagut xëy na jataay bi moo moo moo nu ko mayut ngir mu liir leen waaye daayira bi comme ni mu ko waxee rek gën naa yaatu loolu euh, kon li nga xam ne rek moom la ñuy ñëw ci sëriñ Abdou Khoudous <coughs> ànd ci ak moom mooy mu la leeral nu yan programme la daayira bi am surtout yi nga xam ne moom la ñu dëgmal euh, programme yooyu bëggoon nañ mu dellu siwaat ci su ko defee bokk ci laaj bi nga xam ne mooy mujj ci euh, laaj bi ci wàllu kii bi ñu balaa ñu dellu ci suñ Fallou waaye sëñ Abdou Khoudoss ñi ngi laaj daayira bi yan programme la am ci li nga xam ne mooy doxalinam. sëñ Mame Dame Ndiaye di sant baatam sëñ Fallou euh, di di ko jaajëfal baax a baax ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne moom la doon leeral ci daayira bi ak li si aju. Euh, mu mel ni laaj bi mooy daayira yi bi ndax wala ay programme mu mel ni daayira bi programme am yi yëpp yi ci ëpp solo yi nga xam ne moom lay taxaw ginnaaw bi ñuy taxaw seen programme seen biir muy seen i àddina yi xew jàmm ak seen i yoo xam ne mën nañu wax ne sax du xew-xew naqar waaye xew-xew dogal beneen dogal lay doon yooyu yëpp tam dañ ciy taxaw waaye yi nga xam ne moom la ñu woote te yitteel lool bokk na ci xisroona muharram di màggaluk Serigne Touba di magal goo xamne Serigne Cheikh ahmed Mbacké gayne fatima mo ci taxawayon taxawon taxaway bu am solo ba tax julli yep di ko si roy te mu waxon ci waxam ji roy jëne kep ku ab julit te sa xol ak kiñaan muuru ko war nga xamne bis bi mo gëna a aajowoo màggal euh, bis bobu tam dairatu mukhlisin wal mukhlisat da koy taxawal fu ci Daaru Xudoos ci serigne sëñ Moustapha waaye programme bi nga xamne tam bokko kenn mom rek organiser ginaaw bi nga ko jëlee si ay kilifa ñu leen di sant bu baax a baax muy màggalug Serigne Mouhamadul Fadil na ku ne xam na ne sëñ fàllu mooy waajuru sëñ Moustapha bi mu fi jógee ci xol yi ndax ku nekk xam na ne mag ñi fa nekkoon te sëñ Mouhamadul Fadil sëñ Moustapha sëñ Modou Moustapha sancoon la leen fa ban ko gisatut jaaxle woon nan tiitoon nan jàqoon nan ci jamono ji waaye bi doom ji ñëwee di sëñ fàllu sàkku ji xam-xam ñëw fees dell. mat sëkk li mu war a doon taxaw ñu doon seetlu ci moom ba lan fat lan daan metti la moom Mamadou Moustapha demoon tax mu metti leen euh, lépp ñu fàttu ngir jëmmi sëñ sëñ sëñ sëñ Fallou sëñ Fallou nekk fi nekkin wu rafet euh, ci di taxaw seen yitte wax na ne sax ngénte yeeg lépp ñu xew sax da daan ci teew ngir wayef gu mu wayef ak ni meloon loolu nag seraloon seen xol lool waaye nag euh, ñeent at rek ndeysaan ci la ci la ci la làqu bi mu fa nekk ñeent at rek ci la làqu mu doon bis bu rëy nak bis bobu nak mom lañu ñu fàttaliku daayira bi nak gir taxaw ngir lan ngir fàttaliku moo tax ma ne ngir fàttaliku waye ngir ñaan ngir ñaan tam ndax euh, ñepp lañ ci ñaan di ci jang karim di fa jang ay khasida waye di fa xamal yi nga xam xamuñu lool rek mom moy sabu bis bi di ñaan tam, señ mustafa mi nga xamne euh mom la xolé xoolee ba di ko maam ju bax je yene ji ci daarul islam suñ borom àggaleel ko ndax itam bi mu ñëwee moom itam doonoon tout tànk waaye jaaroon fi ma waajuróom yi jaar ci xam-xam ba ñibbi si daarul islam lim njëkk a def mooy àggale naa li waajuróom woowu muy sëñ Fallou muy fexe ba mbooloo mépp doon benn doon benn bokk benn bëgg-bëgg te bëgg-bëgg bépp mooy lislaam ci la samp li nga xam ne mooy jumaa ji nga xam ne moo nekk daarul islam mu doon naal boo xam ne ci xale bu ndaw mën na wax ne lu teel la ci moom waaye ci ci ci xelam bi bi nga xam ne maanaam mooy fexe ba fa maamam yi taxawoon tegoon seen tànk mu mu teg fa muy samp samp taxawal li nga xam ne mooy mooy mooy daare alxuraan ak jàkka loolu la fa njëkk taxawal ba ja léegi jumaa ja fi mu ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi sori waaye taxaw fa daare alxuraan fexe tam ba xale yi ñëpp di jàng. loolu mooy liggéeyam waaye ñu koy ñaanal itam fan wu gudd loolu ba naal yi mu am suñu borom àggaleel ko mu woote fa nag bis boobu nag di dëppoo euh, ñaar fukki fan ci baraxlu waaye ren dañ ko yóbbu ba ci le 25 avril bii di ñëw incha allah euh, kon bis ñaan la daal ak bisu fàttaliku maam daam mooy programme bu rëy bi nga xam ne daal daayira bi moom la ëpp ci li programme yi nga xam ne moom lay taxaw te di ci di ci tàllal loxo ñëpp daal kon xam naa yaakaar naa loolu daal mooy programme bu mag bi nga xam ne moom lay daayira bi di taxaw <coughs> sëñ Abdou ci leeral bi nga xam ne leeral nga ko ci programme mu daayira bi xam naa dañuy comme temps bi de ñu ngi siñaale na <coughs> la ci des bëriwut daanaka jeex na dañuy jox sëñ Fallu moom bu ko defee mu complété ci rek tàggatawaale mbokk yi nga xam ne ñooy mbokk yi téléspectateur murit point info. waaw jërëjëf euh, maam daam ni ko suñ mbokk waxee Abdou Khoudous euh, noonu képp la programme daayira bi mel ne bisu bisu safar nga xam ne sëriñ bi ci moom moo ko wax moo ko woote daayira bi eh, Magal Touba programme la comme li nga xam ne nii moom la moom la Darou Salam nekk programme Darou Khoudoss nekk ko Magal Darou Khoudoss nekk ko programme noonu la bis boobu di nekkee programme bi soo xam ne nii mur yëpp kenn amul si lu ñuy lu ñuy xaj lu ñu seen xam ne ñëpp a ko war a waajal ñu war ko waajal ci ci kër sëñ bi mbokk yëpp war ko wax ñu sant mbokk yëpp nag di gërëm mbokk yëpp. surtout waa ñi xam ne nii ñooy bàyyi xel mu murid point info ñu ngi leen di sant bu baax baax di leen gërëm di ñaanal yàlla ci barkeb Serigne Touba. bu baax nag mun Mountakha Mbacké yàlla na fa yàlla yàggal lool te wéral ko ba naal yi mu yéenee sumb yàlla na ko eggale. tàmbaleeg ci université bi yàlla na ko yàlla eggale ak yeneen ak yeneen barkeb Touba waaye di ko ñaanal suñu Moussa Mbacké di ko ñaanal mboolem kilifa diine yëpp rek. bàyyiwuñ bàyyiwuñ kenn rek ñu sant ñëpp rek ak ak gërëm ñëpp rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa jërëjëf sëriñ Fallou ci leeral boobu ci complété bi nga xam ne gën na koo leeral ci sëñ abdu fi mu doon wax jëm ci euh, fàttali màggal gi ak taxawaay bi nga xam ne moom la ci daayira Muxlisina wal Muxlisaat ni di ci taxaw kon ñu ngi koy sant bu baax di jox euh, sëñ Abdou Khoudous. mu tàggatoo mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan murit point info ak euh, li nga xam ne moom lañ ko fàtte woon a laaj soo ko defee ñu ngi lay jox nga tàggatoo sëñ Abdou. tawféex waaye di siyaare mboolem ñuy seetaan rawatina ñi nga xam ne ñooy njabootuk ñi nga xam ne ñoo sosoon daaru islam wala seen maam lan fa daloon Cheikh Mamadou Moustapha andiloo andiwoo leen fa ñu ci mel ni njabootuk maam maam Sirilo ñoo ngi leen di siyaare ñoom ñëpp di siyaare tam njabootuk maam Malick Dieng maam Mor Xayta sëñ Moussa Fall ak sëñ Moustapha Bey ak sëñ yu ñaan seen njaboot ak fu mën a nekk ñoo ngi leen di siyaare di leen ñaanal di leen wax ne tey jii daje bi nga xam ne moom lañ doon waxtaan seen dëkku maam la woon seen dëkk euh, cosaan la. Euh, te Cheikh Mamadou Moustapha ne fa di ko ñaanal bu baax a baax suñ borom euh, dolli ko tawféex dolli ko xéewal defal ko fan gudd lool ba mu àggale yéen yi nga xam ne ay maamam moom la fa yéene woon waajuram bu baax wa yéene ko fa ñuy sant baax di gërëm ñëpp di jégalu baax a baax asalaamaaleykum. wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Eh, jërëjëf sëriñ Abdou Khoudous jërëjëf sëriñ Fallou ci eh, jataay bu am solo bi nga xam ne tamit ànd nañ ko ak yéen ngeen leeral fi leer lu am solo loo xam ne commencé ngeen ko ci sosug daayira bi ak turwi ak euh, leeral doxaliinu daayira bi ak ba ci programme bi wa ba ci màggal gi nga xam ne moom lañ dëgmal te di ci woo mbooleem jullit yi yëpp nag bàyyiwun kenn rawatina seen moroom mi daayira yi nga xam ne ñoom lañ seqal yoonu murit euh, ngeen xam ne euh, bis bi bisu ñëpp la kon nu leen di sant bu baax a baax mel na ne lii ab tomb la bu buñ jëlee ci biir tomb yi rek ngir ëllëg buñ dellusiwaatee fas yéene yaatal leeral li nga xam ne mooy daayira bi euh, doxalinam ak euh, programme am ni muy doxee lépp lépp waaye ci loolu rek ci la siyaare sëriñ Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne moom moo leen yabal di sunu kilifa waaye di sunu xarit lool ndax yàgg nañ moom xam na euh, di ko siyaare baax di ko ñaanal yoon wi nga xam ne moom la dëgmal te ay magam ak i baayam ak i maamam euh, gis ko ci euh, yàlla na ko sunu borom sàmm aar ko ba lim ci bëgg mu am ko bi barkate Seexul Xadim ndax xam na ne ma sëriñ Fallu lu baax rek moo ko ñoroon te moom sëriñ Mouhamadul Moustapha lu baax rek moo ko ñor kon koy ñaanal bu baax a baax bëgg ko ci njaboot gi suñu borom defal ko ko euh, di sant bu baax a baax mbooleem ñi nga xam ne ñooy ànd euh, ci di siifar seen site murid point info di ñu topp saa su ne ci mbooleem jataay yi nga xam ne ñu ngi koy ànd ak yéen di leen sant bu baax di leen jox dig daje euh, ba màggal ga ak jàmm di woo ñëpp ñu teew fa comme ni ko waa daayira bi santaane waaye di leen joxaat digg daje rek beneen semaine ak beneen numéro incha allah ci daayira en ligne ànd kook Serigne maam Dame Ndiaye wa rahmatullahi wa